ñii ñoo wattu alquraan ñii ñoo jar wari seetaan lii mooray te ko ñii ñoo wattu alquraan ñii jar wari seetaan sargal leen da def nan ko ñi ñoowattu alquran bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salli allahumma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi tedd yi ñuy topp ci zid bi ñu tudde al istiqaama muy yëngu ci wàllu tasaare lislaam ak ay taxawaayam ñoo ngi nii tey ci seen kanaw ci kanam ay xale yoo xam ne ñi ngi nekk ci biir daara ji ñu tuddee madrasatu ahlil quran li tarbiyati wa tahfiz muy daara joo xam ne li ko tax a jóg mooy jàngal ay xale alquranul karim yar leen yarub lislaam tàggal leen ci jikko yu baax ba bu nu génnee mën a jaxasoo ak société bi mën a defar société bi bu nu génnee nekk ñoo xam ne ñu amal njariñ seenum réew la ñuy doon ñoom ngeen gis tey jii ñu sañ sa ba dekk sol seeni yére yu weex tàll macha allah ñu yaakaar na it noonu la seeni xol weexe tàll alquran rek nekk seenub dënn yàlla na sunu borom tabaraka wa taala baaxaleen ñu nekkoon ci daara ji di nab nabi di xëy ak a gontu ak a fanaan ci téere bi ba yàlla baaxaleen ñu wattu ko ñoom ngeen seen nii ñu taxaw ak seen kaala yu jekk ak seen sañse yu rafet alquranul karim nekk sunu dënn ñu toll ci fukki jàmbaar fukki kaang ak ñett ñu fas yéene leen a teral fas yéene leen a yëkkati fas yéene leen a teg ca kaw ba ñëpp gis leen waaye ñëpp ndaw yëpp mën a mën a roy ci ñoom boroom yu bula yi ngeen gis tamit ñoom it ñoo leen ñoo leen di gunge ñoo ngi feggoog ñoom doon ñoo xam ne ñoomit it ñoo nga ca yoon wa am na ci ñoom ñoo xam ne seen ëlloo alhamdulillah dañuy wax ne xëy na feeg déwén borom sañse yu rafet yi war a dem ca tant be ñu dalal leen xay na ñoom it ñoom la ñuy wax bismillah yéen moom jataay boobu ñoom it ñoo ngi nii taxaw am na ci ñoo ne foofa lañ am na ci ñoo xam ne ci da ngay doog a dog yoon wa di dem waaye daal ñoom ñëpp seen jubluwaay seen mébét mooy fee seen mag yee taxaw fee boroom yu weex yee taxaw fee boroom alquran yee taxaw moo leen tax a jóg kon nag ñi ngi nii di sàkku ñaan ci képp koo xam ne mi ngi bàyyi xel sid bi mi ngi bàyyi xel jataay bi nga ñaanalal ñu leen yàlla sa boroom taxawal ñu leen sàmmal ñu leen ba li nga xam ne moo tax seeni way jur indi leen fi yàlla sa boroom defal leen ko kon ñi ngi leen di tatagal di leen dalal di leen wax ne ahlan wa sahlan wa marhaban ci jataay be nga xam ne yéen a ko waral yéen a ko moom di leen jaajëfal bu baax a baax yéen waa sit bii di al istiqaama ci seen liggéey bu rafet barakallahu fikum wa jazakumullahu xayra ñii ñoo wattu alquraan ñii ñoo jar wari seetaan lii moo te day kiimaan sargal leen de def nan ko ñi ñoo wattu alquraan ñi ñoo jër wari seetaan lii mooray te day kiimaan sargal leen de def nan ko ñi ñoo wattu alquraan ñi ñoo jër wari seetaan lii ma rey te doy. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di fas yéene tàmbali bi nga xam ne moo nu fi dajale muy daara ahlul quran li tahfid wa tarbiyatu l islaamiya muy daara ji nga xam ne mi ngi tudd ñooñ alquran ngir wattu ko ak yare ci lislaam ci njiital sëriñ Mirina Njaay waaye nag ci ron kilifteefu Serigne Mor Gàmmu Njaay ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo jiite daara ji ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di fas yéene tàmbali liggéey bi nga xam ne nangami sami na ngi nii daara ji di ko waajal doon ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal leen tawfeex nu àgg ci tawfeex jooju yàlla def ko bañ fas yéene tàmbali liggéey bi liggéey bi tamit niñ bëgg mu doxe ko rek mooy ne xam na ne daara ji yàlla dogal na dong yi fi nekk limu nañ li waral tari bi mooy fukki dong ak ñatt yu fi mokkalee alquran te loolu mooy lim bi nga xam ne ñoo fi jota nekk jamono ji ñu toll waaye am na ñoo xam ne dañ daan def saa nu mokkale rek seeni wayjur yitte woo leen feneen ñu dem fa daara ji nekk yàlla dogal na ren mooy tareem bi njëkk incha allah mu amoon lim bu am solo bu fi mokkale waaye li fi jot a teew ci gone yuñ mën a gaaral ñu tari fukki gone ak ñett la noo ngi nii sollu wexlu waaye nu gis na tamit gone yi nga xam ne mokkale guñ wàcc nañ te jub ak mokkal wala ñenn ci ñoom seen àlli wa sori na ci lu mat fukki gone ak benn ngir nu laytaayal ñi nga xam ne ñoo mokkal alquran bala ñoo agsi ci ñoom waaye tamit incha allahu su gone yi barkeelu barkeeloo ba pare dina am kàddu yu fi jib muy kàddu e, famille bi nga xamante ni bii ne ñoom la yàlla dogal alquran doon wasal ci ñoom doon walangaan ba agsi ci sëriñ mi ay kilifaam taxaw ko mu sos daara ñu war a yëkkati kàddu ki war a yëkkati kàddu gi mooy Serigne Mor Talla Ndiaye waaye tamit nag bis bi ñu dara darajaale ko sëriñ Mor Gàmmu njaay moom mi nga xam ne liggéey bi ci moom la ko yàlla ballale ba way juru sëriñ jot ci ba sëriñ mën cee jot waaye tamit bu loolu jàllee danañ fi am waxtaankat boo xam ne kenn du ko laajte muy Serigne Xaadim Njaay Rachid danañu fi defal waxtaan wu gàtt mu jëm ci suñu wartee suñu diggante ak alquran ñun julit ñi waaye nag su loolu jàllee ñu ñëw ci ñi nga xam ne ñoo mokkal alquran ñoom ñi nga xam ne ñoo waral nu luye baas yi moo waral ñu takk rajo yi moo waral mbooleem liñ fiy seen lu nit mën a jëfandikoo ñu def ko waaye bu loolu jàllee nag ñu ñëw ci kàddug daara ji ñëw ci kàddu gan yi nga xam ne ñoo fi teewoon waaye ñëw ci kàddu wéy juri donga yi ñëw ci kàddu gu mujj gi muy sëriñ mi nga xam ne moom moo jiite daara ji kon incha allah di soññaat ñi ci biir kër yi rek ñoom ñëpp ñu génn xam ne liggéey baa ngi tàmbali rawatina wéy jur yi ndax jamono ju nekk daf nuy faral di gaar mooy liggéey bi tàmbali gone tari ay wéy ñëw ñaar lay waral gone gi yéeg ne man lii may def kat samay wayjur bàyyi wuñ ko xel suñ ko doon bàyyi xel dana leen jaral ñëw ca waxtu wa wala yenn saay wayjur yi doon ko xër ñëw ne na sama njaboot barkeelu barkeeluwaat te ku ne xam na ne bu fekkee ku tari rek bu say wayjur bu fi say wayjur nekkut bu ñëwee nga tariwaat yaakaar naa ne danañ dem ba ndogu jot mbaa muy bëgg jot te duñu pare te liggéey bi moom li ñu bëgg rek insha allahu mooy fu takkusaan jotee wala lu ko soriwut ñu mën a yëkkati jotaay bi dañuy woor te bu nu sañoon ndogoo ji ci kër ga rawatina ñi sant loo bon incha allahu noonu lañ fas yéenee programme bi doxee ko di fàttali rek ne taabal ju weex ju ndaw jële ñuy séen képp koo xam ne indaale nga loo bëgg a barkeeloo ci bis bi moo xam muy ab leetar moo xam muy loo lambee sa poos ngir bëgg koo jàppee ci bis bi incha allah boo waaxoo teg ko fa rek donc euh, dana mën a delluwaat ci daara ji ndax ku ne xam na ne bis bu mel nii lu mu tuut tuut tuut dana soxla luñ làmbee ci poos def ko ci te ku ne xam na ne sëriñ daara bi dafa baax rek waaye lii moom way jur ñi seenu njaboot mokkal alxuraan ñoom la lépp waroon moom li ko waroon rek mooy mu jàngal gone yi bañ mokkal ne seeni way jur donga yaa ngi nii mokkal nañ dañ leen a bëgg defal ab bis way jur yi ne ko ñaata nga ci soxla loola ñu cotiser ko seen biir teg ko ci loxoom kon bu leen dimbalee nag ànd ak ñenn ci way jur yi ñu defi pexe ba lii taxaw ku ñëw ku ne di wayjur am fi njaboot moo xam mokkal na wala mokkalut war nga cee jàpp waaye kuy ab julit ku nekk tamit am loo ci mën a tabbal ci saw ñàkk mu jëm ci liggéeyu alquran bi war nga ko def muy ñett ñu neexal ci daara ji mooy mboolem jumtukaay yu dong yi di soxla mu nekk ca daara ja te doyit ñu yokk ko su fa amut te dong yi di ko soxla ñu fexe mu am fa waaye neexal sëñ daara bi tamit ba mu yëg ne lim doon liggéey nii sedd na xolub wayjur yi ko teewe woon waaye ñu neexal donga yi ban yëg ne liñ doon def saf na suñuy wayjur waaye liñ doon def saf na julit ñi nga xam ne ñoo ko teewe woon bon moo tax rek ñu teg fi taabal jële incha allah képp koo xam ne am nga loo bëgg a jàppee ci bis bi rek su fa demee incha allahu danañ ci jàpp sëriñ Cheikh Diop mii sama wet incha allahu suñ ci àggee moo war a laaj gone yi barab yiñ war a tari ci alquran moom it nu xam ne Eh, ren borom bi subhaanahu wa taala may na ko ndam loo xam ne ndamal julit ñi la waaye ndamal yoon wi la mooy concours boobu ngeen doon dégg waa Sénico di ko amal ci njiital Serigne Abdoulahi Dia mu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom lañ tànnee woon ci région Diourbel mu demoon yàlla dogal ka dëkk Louga di soxna si Dramé jël première moom mii mu jël deuxième. kon incha allah ñu fas yéene dem ci donga yi barkeelu muy fukki donga ak benn donga bi ci jiitu mu Baye Cheikh Ndiaye. bon incha allah bu ñuy barkeelu jàllee rek danañ fi andi ay way ay anacid incha ñu bàyyi ko xel bon bala ñoo ñëw ci ñu mokkal bon ñu dem ci ñuy barkeelu incha allahu Baye Cheikh Ndiaye mën naa ñëw Serigne Cheikh Ndiaye ñu di ko wax Baye Cheikh Ndiaye doomi Serigne Góora Ndiaye ak Soxna Ndey Ndiaye ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل نصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء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 والله واسع عليم يوطي الحكمة من يشاء ومن يوق الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم Baye Cheikh Ndiaye doomi Serigne Gora Ndiaye ak soxna Ndeye Ndiaye ci doom yi doon barkeeloo ci la bokk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 أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نظير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم القاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفوها ولا تنفوها ثفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن سريتي قال لا ينال وعدي الصالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتقصوا من مقام إبراهيم مصلى وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا منا هذا بلدنا منا وارزق له من الثمرات ۖ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمته قليلا ثم أدتره إلى ثاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ۖ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم kon nu dem ci dong bi ci topp ci dong ak ñeenteel bi ci dong yi barkeelu muy Baay Daaru Njaay doomi Sëriñ Alxaaji Njaay Ndar ak soxna Maam Faati Jóob bismillaahi rahmaani rahiim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 فانشرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم jërëjëf Baye Darou Ndiaye doomi Sëriñ Alxaaji Ndiaye Dar ak soxna Mame Fatou Diop naa di fàttali rek ne moo ngi ànd ak site bu ñuy wax Istiqaama muy site bu am solo boo xam ne tasaare diine daf ko ñor lool am ne bëri na fu jotaayu diine di am mu dem jëli fa la nekk dugal ko ci youtube bi mbaa facebook bi dem fekk ko fa kon mi ngi ànd jotaay bi ba saa jotaay bi jeexee rek ku bëgg fàttaliku li doon jàll mbaa teewu fi woon yëgal ko ne su demee ca youtube bu duggee ci istixaama bu ko tàppee rek des na ko génneel programme yi mujj am yi dina ci bokk incha allah noo ngi leen di sant bu baax ñoom waa istixaama di leen ñaanal am nañ gën jëm kanam bu baax ndax ku ne xam na ne tasukaayu xibaar yi lu gaaw la pour jottali lu baax ba jullit ñi jot nag buñ amee yenn ci ñoom yoo xam ne lu baax dañuy wër jamono ju nekk di jël seen alal di ko ci def ngir mën koo jëriñ jël ko ba mën koo jëriñoo ñu ñaanal leen ñoo ñu mel ni ñoom ñoo ngi leen di sant bu baax di fàttali ñëpp rek ne incha allah suñ fi jógee ku bëgg a xam li fi jàlloon rek soo demee di nga ko defee rawatina yi dong yi nga xam ne mën naa fañ nekk sori na ba ñëw fekk jotaay bi. kon noo leen di fàttali rek ne donga yi ci kaw sol lu weex ñooy donga yi mokkal alquran ci daara ji. mokkal gi nag yàgg na ci daara ji waaye daara jaa ngi door a taxawal ab tari lu daan def bu dong mokkale rek toog fi di jàng xam-xam wala bu dee ko ay waajuram soxla la ñu jël ko mu dem defi leneen yàlla dogal nag lim bi fi jaar mokkal te dem bëri na lool waaye ñi fi jot a nekk ñii bi ñuy amal tari bi fukki gone ak ñett la insha allah bu ñuy barkeelu jàllee rek anaasir yi ci war a topp jàll danañ ñëw ci ñoom insha allah kon ndongo yi ci barkeelu ñu jàll ci ndongo bi ci topp Baye Modou Ndiaye moom it doom yi Serigne Cheikh Ndiaye Ndar ak soxna Mame Ndiaye bismillah Baye Modou أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تفسدون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا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

الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون حطم الله على قلوبهم وعلى شمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقانعون الله والذين آمنوا وما يقانعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن له جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا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 فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم sadaqallaahu al-aziim. wa bashiri lladiina aamanuu wa amilu saalihaati anna lahum jannaatin tajrii. kii moo tax ab jullit daa war di jéem a góorgóorlu di nafar alxuraan ngir mën koo dégg. wallaahi bi dong bi tàmbalee aay bi man damay laaj aay bi ban saar la nekkati sax ngir mooy nu yëg ne luy tax jullit ñi sawar ci jaamu yàlla rek borom bi wax na leen ko ci alxuraan. li muy daaneel ne yàlla mi leen sant nii kay fa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan allahu akbar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan naan allahumma ij'al al-qur'aan al-'aziim rabi'a quluubinaa alquran ji moo taxoon Cheikhul Xadim doon wax naan idaa xara'tu thumunan aw rubu'an nisfan aw ruban uriidu shii'an nee na saa boo masaani tijji alquran di ko jàng su ma tegee li ma doon jàng rek lu nit di yëg ci bu jëfandikoo aw ñam loola lay yëg lu nit di yëg ci bu jëfandikoo ak naan man loola lay yëg man alhamdulilahi rabbil alamin moo teewee jotaay yu mel nii dana bëri aayab alxuraan boo xam ne yàgg nga ko romb ci di ko tari yàgg ko romb ci di ko téele yàgg ko romb di ko bind waaye benn bis la nit di toog jàng ko rek maanaa aay bi rot sam xel li des ci sa dund nga koy bàyyi xel moo tax bon jotaay yu mel nii mat di teewe lool te dem ci dong bi ci topp sëriñ Taala Siise doomi sëriñ Pape Siise ak soxna Maam Jaara Fay bismillah sëriñ Taala bismillahi rahmani rahim قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض فلا قاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين sadaqallahu al-azim ñu dem ci dong bi ci topp ci dong yi barkeelu Mouhamed Ndiaye doomi Serigne Mortala Ndiaye ak Soxna Daba Ndiaye bismillah seydina Muhammad